mu nekk message boo xam ne bu am solo la xam naa ne jeunesse yëpp dañ ko déglu waaye ndaw Sénégal ak képp koo xam ne yaa ngi Sénégal rek di bàyyi xel kii di Abdoulaye euh, sëñ Abdoulaye Faye di si bàyyi xel mais sëñ Abdoulaye Faye dina fàttali mbokk ñoo ngi fii si Thiès ànd ak kii di sëñ Abdoulaye Faye euh, lañuy dem si loo xam ne moo nekk tamit euh, coow Sénégal mu nekk lii di làmb ji làmb ji tamit temps yi moom coow li bëy na trop trop si diggante kii di Ama Baldé ak kii di Modou Lo ñu bëri naa du am xam nga affaire làmb sax man waxoon naa sax du ma si wax parce que dama am benn euh, mbër baa xam ne dama ko ñaar ba mu nekk lu waa des arènes damaa waroon parce que li mu waaw. ko ban mbër la. bëgg ma koo wax. waa ci sëriñ bu nga wax ne Dakar la dëkk wala maanaam nekkoon na roi des arènes wala nekk gu ko. nekkoon na roi des arènes Dakar fii la nekk xam nga. Dakar la nag xam nga mu ñëw digal digal ak man ma ñaanal ko ba mu sotti wante wax dëgg yàlla lii ma digal ak moom di fa ko moo tax moo bàyyi affaire lam heure boo ko woowee mu jox la keneen mu ni waxal kii nekk fii nangam nangam affaire yooyu xam nga bëgguma tudd tur. mais bëgg bëgg tur mais bëggoo tur tur mais tamit euh, sénégalais yi tamit am nay temps yenn rumeur yoo xam ne koy dégg ñu bëri ñoo ngi naan kii Eumeu seen la woon. <laughs> waaw xam nga comme noonu bëgg ma tudd daal bëgg ma tudd tur xam na kooku xam na daal. li mais Eumeu Sène la ci Sénégal yi bëri ñu ngi naan Eumeu la. non bëgg ma tudd tur xam naa ko moom wax digg yàlla li mu def moom wax dëgg bu ma sañoon du ko def. mu am na combat. <laughs> moog moom li mu bu ma sañoon bu daal li mu def du def gis nga warkat baaxul. war baaxul booy waree rek dañ lay dañ yàgg-yàgg li nga bëgg moom pour pour nga am ko mun a jafe bëgg ma tur waa moom xam naa li ma ko wax parce que numéro mu ngi fi diggaal na man ak man ak moom li ñu waxante woon dara def ko si daan na nekk na roi des arènes li mu waxoon dara def ko si wante doomu gu ma ko jàppee parce que affaire làmm du sama wërsëg si lay mun naa wax sax sama wërsëg suy ëpp man si ci ni nekk bitim réew ni nekk ñi nga xam ne dama leen ñaanal ñi ñi gis sama wërsëg foo la foo la foo laa ko amee man man sama sama lii yaakaar ma ko si ay mbër man yaakaar ma ko si ay mbër. moo tax euh, yàggoo sur waa des arènes <laughs> xam ko daal moom xam nga kook ba léegi jàmm laa koy yéenee jàmm laa koy yéenee parce que am nga Sénégal comme ni nga waxee Sénégal. Euh, boo laalee nitam rek fekk sax moo la tooñ sax nga wax lu ñaaw rek ñu bëri dañ daal sa kaw moo tax doo ko bëgg wax dara xanaa kay nga bàyyi ko xelam bu demee ba dëpp bu ñëwee man la fi fekk kese wante Sénégal bëggul ku wax ci ministre am dara wala ku sa wax président dara wala ku wax ci sërndam dara wala ku sa wax mbiram dara boo ko waxee ay saaga lan lay def. ku tooñ ku fay lañ xam. waaw ku fay lañ xam moo tax ku la tooñ daal bàyyi ko rek ba keroog ngay lii parce que Sénégal moom comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp. Euh, ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waa lu ñaaw xaju fi waaw te réew mi waaw jàmm rek la te comme ni ma ko waxee Sénégal bari na ñu baax daal bari ñu ak ak ñu bari ñu baax ak ñu am yërmande surtout maire yi surtout maire yi maire ñi oh, maire yi am na ñu am yërmande. est-ce que moom si combat bu bu mu amee kii bu Bombardier lañ ñëw <laughs> bu mu daanee kii Bombardier jël li roi des arènes parce que bu mu jiyee bu mu daanee Bombardier jël roi des arènes say dem si Modou Lo daan ko. xam nga comme lu ma ko waxee xam nga jamono yooyu sax gars yi bu muy bëri noonu wax am na ñu ma waxoon léegi waxal lu ma yorul mu ñëw mu ñëw mu ñëw fay ko. am buy bë bëriwaat ak ak Modou Lo. non xaw ma am an ka dëgg am na daal wax na ma am na ñu woo wax ma ñaar la la yoroo ma ñoo fay ma ko man bëgguma yow nga fay ko yow moom si boppam. nañ ñëw déplacé jël otom ñëw ba si man fay am na ku ko bëggoon fay dama la fa am na ñu ma woo téléphone bëgg fay ñëw fay ko moo ko man déedéet man du ma def noonu parce que man xaalis bi intéressé wu ma man li ma intéressé rek ñi mu waxante woon parce que moo wax parce que yéen yàlla Muhammad moo wax bis bu ma daanee dinaa déplacé sama oto ñëw ba yow sant la jël nga jox la man loolu rek moo ma intéressé xaalis bi intéressé man man man maa ngi sant yàlla bu baax. gisuma ko boo ko am nga man li ma gën a métti am nga nit ki waxal dëgg rek boo wootee ngay joxe nit ki téléphone wax ko nekkuma fi fekk yow yaa ngi fi xam nga loolu am liwul wax ko diw dafa tukki loolu moom moo ma gën a métti man moom moo ma gën a métti man bëgg ma loolu damay bëgg rek yow instant yow kay yaa moom sa bopp kay man ak yow diggal nañ ko li ngay waxoon defoo ko kay jarul ngay ngay ngay ngay li parce que la fen Euh, jour boobu sax am na ku ndokkoo sama wet di wet di di di lii bu ma joxee bu ma joxee parce que am na ko xam ne yenn saa day changé baatam moom si boppam wax la waa man la diw wante diw dafa génn wante ma wax astafurullah astafur day wax dëgg xam nga man dama dama ko wax day wax dëgg yow waxal te man nga damay set yow mii laay waxal day wax dëgg mu ne noonu seen bi dee noonu kii rakkam la mu dee wax dëgg man maay rakkam dañu wax dee wax dëgg du yow man xam naa lu ma la wax du yow du du yow la laa ko bëgg wax yow la dee dee wax dëgg lu tax nga ne euh, diw dafa tukki daf di tukki dina tukki di fi bàyyi ay téléphone am wax dëgg ki nekk sama wet di di rek moom Abdoulaye yow du tax nga am fit ma ko ah man amul damay sax di gis te amul amul man amul Macky Sall laak amul président laak amul boo waxee loo xam ne du dul dëgg damay wax du waxoo dëgg waaw loolu la ni desuwaat si combat kii di Modou Lo ak Ama Baldé Sénégal yu bari jàpp ne combat bi kat du am loo gisee la. bi mun naa am sax parce que combat bi du am moom lo bëgg nañ mu am moom si ñoom la le wante li ma si xamal si ñoom ñaar képp koo xam ne ni yaa ngi jël ay sarax mel ni ceeb diwlin ceeb diwlin ak dund ak suukar nga dem kër bu gën a néew doole nga jox ko ko boo bëree yaay daan. man loolu laa waaw. si combat bi si kàttan yàlla. boo jëlee la nga xam ne nga bàyyi ba ñi lii nga jënd lool nga dem ba ba ba ki nga xam ne dafa néew doole nga joxe parce que gis naa ko lool donc kooku mooy daan kook donc moo mun loolu dong la mën a def nga daan. loolu daal mooy sarax bi mooy ak a yomb saako ceeb diwlin euh, suukar. yi sa café yi sa war a dund rek nga dem néew doole bi gën a nga xam ne kii bu añee du reer bu ndekkee du lii nga jox ko ko booy wéree di daan xool naa ko wala loolu kese ku ko def day day daan gis ngeen ko xool na ko te bu nga xoolee xam naa ni gis na ko moom tamit te wax na leen lii di sarax bi lemen naa léegi si Ama Baldé des ak kii di Modou Lo euh, waaye si beneen combat combat boo xam ne Sénégal yëpp ñoo ngi koy xaar muy si diggante kii di Bombardier ak kii di Boy Niang euh, kii di euh, maanaam Balla Gaye ak kii di Boy Niang gisee combat boobu tamit waaw boobu moom ko boobu moom balaa ma ko xool mu dem ba si gën a xam ba mu gën a jege. waaye ma xool daal moom lii est-ce nga ni euh, jamono yee rek bu may xooloo affaire euh, Balla Gaye ak kii ma bu ma xoolee parce que xam nga ah, dafa dafa am ay nit ñoo xam ne dañuy déplacé ñëw ba si man waa ma xoolal ma diw ak diw kal mooy daan. si diggante ban woon. boobu mooy kii la woon Balla Gaye ak ak Bombardier moo ko ah Issa nii nii kii victoire bi daal Bombardier moo ko moo ko taxawee. Bombardier daal moo ko taxawee parce que lii mbir yi daal coow bi daal si moom la topp kon ak ndam bi daal moom la topp te loolu la amee moo tax kooku ñëw na ba si man jox naa ko ay tettal jox naa ko ay mooy ku nekk ku bokk bokk ak moom ñëw na ba si man. ku bokk Balla Gaye ku bokk Bombardier ñëw na ba man wax naa ko li ma koy wax jox naa ko ay tettal moo ko moo ko moo daan te mooy yàlla def moo daan kon comme lu ma ko waxee ko képp koo xam ne si mbër yi ñëw nga si man. ñëw nga si man wala wala mbëri bi mu ñëw wala nit ki yoon mu yónni la bu mu la xoolee dinaa la wax moo daan bu la neexee nag nga génn sa télé nga ni diw mooy daan mais amul benn sànq bu ñu doon wax muy diggante kii di Eumeu Sène ak kii di ñoom tamit war nañ bëriwaat te tamit bu ñu ay kàddu Eumeu bu mu daan kii di Bombardier noo gisaatee combat boobu. <laughs> waa xam nga man comme lu la koy man comme man lii euh, euh, wees na bugguma parce que xam nga sénégalais yi léegi comme lu la koy boo tuddee seen mbër. ñu song la boo waxee moo tax xam nga xam nga yenn saa nit da fa am fu muy toll si yow ba bu la tooñee boo waxee si moom sax si yow la ñuy dal moo tax lool bu amee rek yow bàyyi mu sedd rek bu si waxati nga xam ne yàlla rek moo fi nekk yàlla rek moo yoru moo yoru lii. amaan na maintenant léegi du ñu wax si problème mais noo gisee combat boobu. amaan na amaan na lii sama wërsëg moo si nekkul pour mu jox ma ko. parce que yenn saa loolu day am yenn saa gis sa wërsëg sa wërsëg. bu nekku si lenn mun a fexe ba lekk ko parce que am na loo xam ne tey xëy na loo mun na ma bañ a jig sax bu mu ko lekkee mun na ma indi leneen wala leneen kon nit ki bu bul diggaale ak yow rek mbiram sotti rek bu la ko joxul rek xamal lan moo waral mu joxu la ko est-ce tere na ma lekk wala est tere na ma naan est-ce bu ma ko jëloon est du ma indi yenn problème est-ce que sama wërsëg sax encore ci période boobu mu ngi si ma parce que dafa am ay période yoo xam ne si nga war a lekkee wërsëg nit ak période yoo xam doo ko lekk. parce que loolu il faut yàlla def loolu pour wërsëgam nga mun koo lekk loolu la wërsëg fii nit ku waroo fii war ma lekk sa wërsëg ala kulli aar bu ma la doon liggéey lak di la sëf ak di la xëcc di la woo téléphone te war ma lekk sa wërsëg duma waaw bis ma waree lekk sa wërsëg yow mii sax doo nelaw guddi googu fii indiwoo ko si man lépp ma lekk ko doo nekk si jàmm. mais ba léegi sëñ bi wax ko ma combat bi loo si gis naat si diggante Eumeu Sène ak kii di waaw comme lu ma la ko waxee rek xam nga. mbër yu bëri dan maa xam nag du ma la fen waaw mbër yu bëri tey jamono toll nii dan maa xam te est-ce que xam nga ni du ma la fen nag am na mbër yu bari yoo xam ne sax euh, nekkul ñoo xam ne wala ay artistes yu bari yoo xam ne nekkul ñoo xam ne damay ñëw sax di leen ñaanal damay ñëw jékki sama teraanga di leen teral ay guddi di ñëw foofu. barke Seydina Mohamed Seydina Mohamed laa la waatal am na artistes yu siiw yoo xam ne maa sha Allah danoo yor lu dul jeex am alal bu bëri wante man damay yëkk sama alal di leen jàppale. Euh, mais collectif ma doon dégg si làmb ji artistes yi après den si ñëwaat su ne su ñuy jeexalee euh, dafa am benn mbër bu ni benn mbër yu koy tëkku ne ko maa ngi bi su mu tëggalee suñu combat doo sax ñëw isaat est-ce que gàllaaj yooyu am na. waaw gàllaaj gàllaaj am na xam nga gàllaaj xam nga Seydina Muhammad Rasulullah fekkee moom la ñuy liggéey di ko fas di ko fas di liggéey ba liggéey di ko jàpp kon kay doomu aadama liggéey mën na koo jàpp. ba ba ni mi yow. bu ñu tëggee suñu combat ak yow doo ñëw isaad. waa xam nga dafa am est-ce que xam dafa am gallaaj yoo xam ne galaaj yoo xam ne sax pour di di tekku la ni ya tekku moo moo tax mooy jàpp am na galaaj yoo xam ne noonu lay def pour nit ki bu ma la jàppee nii laa la def lii laa def yow doo doy doo doy galaaj boobu noonu jàppee di dëgër am na gal bokkul ak liggéey bokkul ak liggéey boo xam ne boo ko tuddee wala boo nga gis ko mu toj am na liggéey yoo xam ne boo ko gisee wala nit ko wax ko sax du toj du toj am na liggéey yoo xam ne ni ñu ko liggéeyee boroom rek moo ko mën a toj moo tax am na dof yoo xam ne ñu ngi fi fii boroom ñii leen sëriñ yi leen liggéey mën na gën àdduna wala kook gën àdduna waa kook fii demul si moom pour mu dindi ko noonu lañ deewaale am na liggéey yoo xam ne bu la xasee ba liggéey la liggéey la parce que am na liggéey yu bon yoo xam ne si bopp néew lañ ko def moo gën a bon parce que néew bi ni mu tëddee noonu ngay tëddee doo jug wala ni wala ni yàq sa àdduna wala ni def si géej liggéey bu dugg ci géej ak bu nekk ci teen ak bu nekk si si si si bàmmeer ak bu nekk si garab ngelaw yooyu yëpp baaxul ak bu nekk si picc parce que liggéey am na picc am liggéey ba am na liggéey boo xam ne est-ce que xam na am na liggéey boo xam ne dañ lay mën na la seeyal dootoo nekk si àdduna bi yow dootoo nekk si àdduna bi da ngay génn. waaw loolu tax day toog ba rek gis am am benn mbokk boo xam ne dootoo gisee. dootoo ko gis mën na nekk feneen doo leen gisati am na am na liggéey boo xam ne boo ko boolee ay rab. wala boole ko ay jinne wala ñoom ñoo koy jël yóbbu ko dootu ko gisati ba keroog ba keroog àdduna di jeex am na liggéey yoo xam ne bu ñu ko liggéeyee nit ki fii kooku dindi ko du duwér am na liggéey yoo xam ne sax yu gën a bon yooyu sax boo ko defee pare da ngay jël puso di ko di ko di ko jàmm yow ma gën a bon moo tax ñin ñëpp dañuy xam xam-xam yooyu waaye ñin duñ ko def parce que ñin bëgguñu lor doomu aadama duñu liggéey nit ki du duñu yàq doomu aadama duñu def la parce que àdduna day jeex képp ku koy def nanga nga ko baax baaxul man du ma ko def du ma diggal kenn ko def nag. yow doo ko def mais est-ce que te bu ñu ko defee nit bu ñëwee si sëñ Abdoulaye Faye dina ko dindi. nit bu ñu ko la defee si kattan yàlla ma xool ko mën naa ko dindi. dal càmm bu fekkee mënoo maa jot lu fekkee leer na dal la liggéey seetal dal càmmooñ nga jël juróom-ñaar puso nga jam si nga jël xeer tiim nga def si nga jàng faleex ak naasi ak article si bu nekk ñetti yoon nga tëblu ko si nga sang ko liggéey bi liggéey bu mënta dooñ mu ci kattun yàlla fekk yàlla nam na ko dindi mu toj waaw may naa ko ñi nga xam ne dañ may seeta seetaan waaw dama koy joxe cadeau insha allah parce que comme lu ma la ko waxee rek xam nga àdduna boo si nekkee bu wax lii mënta nekk rek da ngay wax lii dama ko deful wala dama ko gisu ku ma ko defal waate nañ bàyyi lii mënta nekk lii amul fii àdduna bi li fii mënta am bariwul xam nga lii man gëm naa li jamono bii li fa mënta am la mooy dee de doonte loolu sax am na fu mu amoon mooy dee pare ni dëkk la nga jugaat wante loo gis si àdduna loo gis si àdduna bu wax mun mënu nekk da ngay wax mu dama koo gisul wala daf maa dama gisu ko ko mën wante bu ko wax amul. moom la tubaab naa rien n'est impossible. wallaahi loolu lu lu lu am la parce que comme lu waxee tubaab yooyu sax tubaab yooyu sax ñi nga xam ne ay médecins yu mag de dañuy feebar ñoom. dañu feebar parce que day boo gisee ibaad yu wax loolu dafa araam ay ñaan ay gallaaj dafa araam mooy araamul wante dañuy wax pour gallaaj bi gallaaj si boppam bi nga bañ nga gëm ko nga gëm ko nga bàyyi yàlla moo tax mu ñuy wax dafa araam waaye galaaj bi defoo ko pour weddi yàlla da nga ko def pour mu mu mu faj la parce que am na ñoo xam ne tey am na feebar yoo xam ne bu la dalee nga takk ko mu wér wante feebar yi nga xam ne xale yi nga xam ne dañuy sawalal nag pour dañuy takk ay téere mu dañ. est-ce que loolu kon dafa arab parce que yow jubloo si pour weddi yàlla wante xam nga dañuy wax ñaan yàlla wante mun nga ñaan yàlla wan ñaan yàlla façon bu nekk mun nga koo ñaane mun nga bind axuraan nga ñaane ko ko mun nga dem jël garab nga ñaane ko ko mun nga jël garab garab nga ñaan ko est-ce que tey boo demee si tubaab tubaab tubaab hôpital yi pour ñu faj la boo demee doo wax pourtant da nga am yéene ak yi boo demee si garab bi mu lay jox boo ko naan naanee mu faj la yéene ngay am rek pour mu faj la wat boo paree la nga ko koy wax moo la faj sunu borom parce que moo ko jaarale fa parce que garab boobu amaan na boo waroon gën àdduna garab boobu du la faj. si si wàllu araam boobu ay ay toj gàllaaj ak yooyu ba léegi dañuy des si làmb ji parce que loolu moo waral ñu bëri jàpp ne kii di Modou Lo kat moom bàyyi làmb parce que moom léegi ibaadu te garab yooyu muy takk yëpp dafa araam. waaw xam nga ko mu la wax xam nga takk gàllaaj ibaadu ñoo wax dafa araam moo araamul. waaw man parce que tey ñoom mu tey boo nekkee si biti xaj nekk fii xaj bi nekk fii nga génn nga génn nga digg mooy moom moow moow moow moow léegi te yow duggoo si biir gis ko boo taxaw si biti ni wax la xaj bi xaj moo nekk si kër laay waa kooku kooku bu jëkki mun na wax la ba xaj bi nu mu mel nag loo koy wax xaw nu mu mel parce que gisoo ko waa da nga dégg mbéw xam ne lii xaj la wala xamoo xamoo ban couleur la yor ibaadu loolu moo leen desee xam ñoom dañoo dugg si biir xam-xam ba xam xam-xam lan la ba xam lii lu tax li la xam-xam ah téere yi ak yooyu wax nun wax nun ñoom dana bëgg mu wax dafa araam boo ki nga xam ne ki ku mu araamal mooy ki nga xam ne da koo gëm bàyyi yàlla nga ni lii rek moo may faj moom moo moom ma tere dund mu la wante wante dangay wax gannaaw yàlla ak yeneen bi gàllaaj bi mun na maa faj parce que yàlla mun na ko def mu faj la. da waaw loo man loolu si kaw loolu yàlla mën na si def barke parce que da gis koo xam day say di say di daanu di lii pourtant ay ñaan nañu def rek fëgg sa bopp bi mu dañ. kon jàkk nga ne fu mu toll nii Modou Lo mën na continuer di làmb ji. lu tax mën a continuer di làmb ji lu tax mën na ko continuer mun na ko continuer mun na ko continuer dara nekk si mën na ko continuer gars yi dañuy wax rek man instant yi xam nga jamono toll nii dañoo nekk koo xam ne ku bëgg affaire buzz ak affaire yooy moo leen neex moo tax dañuy seet benn affaire la créé ko loo xam ne sax leer na lii amul sa benn sens ni ni koy def lii nit ki bu la joxee micro seetal lu am solo ak li nga xam ne nit ñi mun na see jëriñoo ak li nga xam ne boo ko waxee ñëpp xam ne li nga wax lu am la nga wax ko wante Modou Lo euh, sëriñ bii wala ay ay ay dañoo dafa dugg si ibaadook dafa dugg si lii déedéet mënoo gëm ibaad yi ñoo la dàq sax ñaanlu waaw ah, ibaad yi yooyu nga ñoo la di ñëw si xam nga li gën a bon xam bon sa àdduna mooy ki nga xam ne bu toogee di di tere di tere yàlla lii te bu wéetee mu koy def am na ñu koy def de bu te nga tere li ngay tere te yow yaa ko dàq def téere bi dafa araam affaire te pourtant est-ce que xam nga ni tey mun nga jékki-jékki ñoom si boppam ñu feebar feebar metti ñu faju hôpital faju lépp def lépp waa nga xalaat nga xalaat boo demee si maaraam mu faj la mu liw parce que comme ni ma ko waxee rek affaire bi nekkul si téere bi yàlla mooy def téere bi mu faj la parce que comme comme benn waay mus naa ñëw ñëw si kii bind axuraan si daa di def nii di bind di bind axuraan bi di bind li koy lii mu après mu ni noo bàyyi lii mu jël daxaa bi naan ko mu ni ma lool moo gën a gaaw non non pourtant daxaa boobu laxaa bi du moom moo lay faj wante lii araf yi nekk si mu xaatim yi bind moo lay faj moo tax moo la te pourtant léegi lu tax ñoom dañuy wax kon fekk loolu xam nga man man damaa gëmul ñooy di wax loolu man damaa gumul loolu di wax loolu parce que tey léegi yow boo feebaree nan nga mu ne ñaanee yàlla pour mu lii la kon léegi kon ki fekkee yow instant yow boo feebar feew grip wala nga feebar feebar bu métti kon lan ngay wuti lan nga wuti ci hôpital ba mënoo toog nga ni yàlla dina ma faj wala nga nga tàllal nga ni yàlla dina faj nga wuti si hôpital ba pour lu war a nga doon pour sabul pour garab yu la jox nga naan ko lu tax ibaar yu ñoom ñoo dàq dem hôpital hmm? parce que comme lu mu la ko waxee rek ñii dañuy mën a faj si si si xanaa xanaa yéen si yàlla yuusufa moom moom lu mu doon faje dana faje si ay ay ay ay kàllaama wax ko loolu wér wala loolu ndi affaire bi ku nekk ak li ngay mën a fajee ñii si ndox lañuy fajee ñii si sunguf ñii si garab ñii si si si jàng ñii si course ñii si lépp am na ñoo xam si si dàll la lay faje dàll la da ngay feebar feebar am lu la daal ni dóor la ko nga wér am lan galaaj yi nga xam ne da ko tàkk bu la jamee paaka du dugg lépp si waaw lépp si ay lii la